c'est extraordinaire mais li ñu war a njëkk a bàyyi daal dans ce pays mooy lépp lu ñuy def ñu politiser ko mu am farfarloo parce que les conséquences yi ma foofu laay terminer la ma commencé woon conséquences yi mooy lu nit mënul jox explication mooy les morts waaw alors Mame Birame Wathie euh, une zone comme comme Kédougou hmm. de toute façon léegi la ñuy tudd yeneen zone naan am na ay richesse mais ba ñuy jàng ñu en tout cas buñ nee zone bu riche ci Sénégal dañ naan la Kédougou ne la am na lii am na lii am na laa comment se fait-il une zone comme ça dem ba am fa ndox wala courant jafe xale ya fay yeewoo am am liggéey jafe leen ba finalement ñuy jàkkaarloog gendarme yi xeex di ci am ba bakkan di ci turu pourquoi dans les zones où vraiment des Sénégal l'État mënul fexe ba nit war a mën a jóge ndakaaru ne man damay dem dëkk Kédougou parce que lafa nekk dama bëgg di ci jariñoo ci réew mi laa dëkk. te femme bi amoon na waxtaan nañ ko peccoo sax. oui nga euh, finalement mu ñàkk bakkanam ak doomam. affaire négligence lañ doon wax ak yooyu mais boo xoolee transport bi yéexoon na ci diggante bi. très bien Issa Mame Birame. Euh, man de dama jàpp ne wax dëgg yàlla xëccoo poussière jarul xëj ay manifester ba nit di ci dee. Mhm. parce que en réalité poussière la ñuy xëccoo Sidi Bara mu ngi koy wax sànq bu njëkk préfet dugg ci woon parce que dañu jàppoon ne lu amul solo la. ñu dénk ko chef de village. mu dem ba commencé am solo ñu ne dañ ko bëgg a jëlee ci loxo chef de village yi. Hmm. coow li nag mooy jusqu'à présent waxuñu ci waxu or ba fay jóge kenn waxu ci de moo tax ma ne la poussière la ñuy xëccoo. or ba fay jóge buñ ko génnee ba pare mu tegu ci avion. dem directement Suisse léegi sénégalais yi des fa di xëccoo poussière c'est comme ça que ça dernièrement euh, la ñu soxla dëgg dem na pënd ba fa des ñun moom la ñu nekk. moom la ñu xëccoo pënd ba. parce que deux mille vingt yaakaar naa deux mhm. presque nee nañu production euh, li Sénégal extraire ci or mat na ëpp na seize tonnes nekk ay milliards de francs CFA. te pourtant ñu ngi naan la dëkk ba muy jóge nit ñi amuñu ndox. nga nga nga am fa doom problème la. ak yeneen ak yeneen ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne da nga koy tudd. te pourtant Kédougou boobu comme ni nga ko waxee ñun <laughs> bu ñu daan jàngal euh, les ressources naturelles du Sénégal. même si quelque part doon ñu wax sax li nga xamante ni moo fa am réellement. Mhm. mais li ñu daan dégg mooy que Tambacounda am na marbre am na fer am na or et cetera. tey jii nii ñu ngi considérer que ne c'est Kédougou mooy la région la moins développée au Sénégal oui. malgré ressources yooyu yëpp mu am fer bi ñu ngi koy estimer à plus à des milliers et des milliers de tonnes de fer en réserve loo xamante ne ni à un moment donné taxoon na sax ba euh, Sénégal am ci jafe-jafe ak ku ñuy wax euh, ArcelorMittal yëgoon nga loolu ba ma ngoog ba ñu demee ba nga xamante ni ñu ngi génnaat ci projet boobu ñu ngi ñu indemniser à hauteur de dizaines de milliards te ñu bëri dañoo waxoon ne sax c'est un euh, coût infime par rapport à ce que fer bi lu muy représente réellement mm-hmm. donc nga am fair am marbre am or ba pare zone boobu bokk ci zone yi gën a deltu ginnaaw. Hmm. amul benn Sénégal ko mën a expliquer. mais amul leen lu ko mën a expliquer mais nag xëy na c'est une xoosanto la ñuy wax ni parce que xoos nañ seen or yóbbu ko ñoom ñu des fa di xëccoo mais c'est daanaka partout au Sénégal. Richard Toll soo fa demee seen maa ngi koy <laughs> maa ngi koy wax bërki démb di tooñ seen fonde du saf suukar te CSS fa la ne <laughs> boo demee Mboro ak Taïba seen tool yaa ngi booy mhm. te pourtant phosphate dafa ma nga fa lay jógee mhm. boo demee Kirène ndox mi ñuy naan sunu ndox yi jóge ci robine yi ñoo ko tan ci teen la ñuy roote te pourtant euh, Kirène boobu mooy jaay ndox dak daanaka dakaar mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam qui est mais xam nga euh, euh, moom kay la euh, la responsabilité est partagée ñi nga xamante ni ñoom lañ koy njëkk a teg. Hmm. mooy les dirigeants yi nga xamante ni ils sont loin d'être patriotes. loolu mooy un. Hmm. bi si topp mooy population yi parce que à un moment donné tamit bu nekkee am na loo xamante ni nangu nga ko ci nooteel ak lu nekk. Hmm. ñu teg la ko <laughs> mais quelque part dañuy wax ne <laughs> dagan na mais bu nekkoon ne population yi consciente nañ que. seen suuf soosu recherche yi muy am. Mhm. il ne doit pas question ñu koy jël di ko yóbbu ci yeneen i dëkk di ko yóbbu ci dëkk ñoom ñu leen di bàyyi ci ndool yaakaar naa ne ñoom ñooy njëkk fippu. Mhm. Issa Sànq mu ngi wax ne dañoo baare ay tëli mais nekkul ay tëli la ñu baare ay latérite la ñu baare parce que foofu tëli sax amu fa. tey jii nii mu leeroon na la ne euh, euh, euh, jëlee nañ ci dëkk bi des milliards. xëy na sénégalais gisuñu ko mais au moins sax dinañ ci indi euh, lenn loo xamante ni dina permettre population yooyu noonu bu leen poussière bi sonale ñu dem am am poste de santé wala hôpital boo xamante nañ ma fa mën a dem fajoo mhm. mais loolu sax ça n'existe pas mhm. Pape Makhtar Mame Birame mi ngi wax euh, la responsabilité est partagée mais état bi nga xam ne mooy